voilà fi mu nekk nii Mbisaan gis nga ñi lii moo nekk seen job ci dëkk bi ay ay biir ni naa lii mooy lan ronron. waaw ronron waaw. yow ronron yaa ko ñaw. maa ko ñaw waaw. yow noo tudd tonton ronron. tonton ronron laa tudd. ah kon yow da ngay rek. damay ronron rek. kon yow lu ron rek ngay seet. lu ron rek lay seet. wax ma couleur ma xool yaa doon tubaab bii lan la. bii rouge la. bi ci topp. bon zone zone or. la nga bàyyi bon ak en fait. Amina Amina non il faut ma wax ko sax parce que dama ko jàng. <laughs> Hmm. waaw bi ci topp kan couleur la. bi ci topp vert kii la. bleu bleu bleu non non bleu bleu bleu kenn wax bleu. bleu. bleu. <laughs> waaw léegi fi mu nekk nii yow nga ne nongolo bi ngay maye yow fi mu nekk ci may. bon ndongolo bi maa ngi siy may sama doomu ndey Ibrahima Ndiaye. limal ku la neex jëlal sa temps relaxal. di may Ibrahima Ndiaye sama doomu ndey di ko may Aliou Thioub di ko may étudiant Tafa Cissé. waatal bu baax. bon di ko may. dugalal sa loxo say poos. di ko may sama chéri yi. chéri sa mignonne jolie. waaw Ndiémé Mbaye. di ko may magam Ayda Mbaye ak sama goro Fàccaam waaw maa ngi koy may ñëpp di may yow Amina non bàyyiwuma kenn. nel kilo kilo. waaye kii am feeling. nel tufee. tufee. waaye man kii wër xale góor yi mel neel ni kii xoolal na ko ay eh, taxawal yow na ni ñuy waxee kilo. nga ne nuñ koy waxal ne kilo kilo waaye mel na li ki bu bëgg yaay ba mel ni Ousmane Camara yi yàqu yàlla yaa ngi wow wow wow wow yeah lu bëgg yaay ba mel ni roone ba mel ni ku sey noo seexu yaa waaw waaw Tonce na nam naa la de. maa ngi nii. mais fi nga génn nii tey ci bleu bi dafa naaj si France laa jógee. ah France nga jógee. oui ban volo la fi wàccee. kii nu mu tudd air saret. non air kii Desio. <laughs> leer na luy Desio. Desio deux chevaux quoi. oui ah deux chevaux. mais yow xoolal fi mu nekk nii nongolo bi yow kan nga ci bëgg a big ab yow. nongolo ban. bi ma la may kan nga ci bëgg a nuyu sama waa kër yëpp. bàyyiwuma kenn. ana matos yi. fi. loo am tey comme bagage. lii lii près du corps la ñuy laaj. yaa ko ñëw wala ci bal bi la génn. maa ko ñëw quoi leer est-ce jógewul ci bal bi. non jógewul ci bal bi. yaa ngi gëlëmal de. barki Serigne Bichara ah. waaw. barki Serigne Bichara. kon kon neel barki Serigne Kila. barki Serigne Flottant. marchand <laughs> ambulant. fajar la ñu yeewoo. jëg di jaay dem. bul tifli micro bi. marchand ambulant. maccal sa gerte gi ba pare. <laughs> waaw marchand ambulant fajar la ñuy yeewoo jóg di jaay yee après ku dul ku dul waaw après am na demaat ci beneen <laughs> léegi man yow yaa ma neex. noo tudd. man Modou Tall laa tudd. waaye Modou Tall waaye Aline Tall waaw Modou yow fi mu ne ndongolo bi koo ci bëgg nuyu. man maanaam ndongolo bi maanaam suy du jàmmi borom siiw daal. ah siiw laa la siiw moo ma moo ma si neex. waaw looy sàqam mi gerte gi doo ko màcc yaa ngi takkal micro bi Modou bul ma indi problème. <laughs> léegi jënd ma ndox ah, ah. Eh, eh, ma. ko benn ndox. waaw bul këf ba taxawal bañ jox la. du ma këf du ma këf. waaw Modou yow waxal. waaw kay merci. marchand ambulant la xam nga marchand ambulant. waxal waxal kii waxal kilo. lan kilo. kilo. si <laughs> sa yaay moo la nampal ci weenam bu tedd soo moomee moo lay di la orienté bu dee soowu gor la da gore bu dee soow ku baax da ngay baax bu soowu muñ kat da muñ bu dee soowu ku tawe da ngay tabee kon yéen bokku leen suñu yaay ma samba nee na yaay yaay fale kaana ko tujjee ku faatu ne mi faat mi faat yaay fale kaana maa ngi nuyu sama yaay Bintu Mbaye Kébé maire di ci sama yaay Awa Gana di ko may sama yaay Mbène Mbaye di ko may sama doom bay yëpp maam Nene maam Mati di ko may ñëpp di ko may Amina Poté di bax ne ñu ngi seetaan émission bi ñu ngi kontaan dila la bége. yow doo charmé xanaa doo charmé wu <laughs> <laughs> waay bàyyi bàyyi rek ñu simple noonu waaw moo gën gënal. kilo. kilo. waaw ba tax na nee naa la fi mu nekk nii kilo moo xew ci jamono nee naa la Macky day peese ba mu mat ba tax na fi mu nekk nii amatul détail lépp kilo la ba tax na kon dañuy dox ci kilo. borom tuufee nag Youssou maa jigéen dem na fépp def lépp moo tax ñu créel ko tuufee kon moo tax Youssou tuufee. léegi nag fi mu ne ndongoloo bi dañ koy tëj jàll ci beneen clip bu gën a ris moon jiis clip yooyu romb ñu xool keneen kan lañ koy jox jox ko ko ci kilo. doom ci sama yaay dooy ci dama boo jekkoo del maa